Cerno ba Cerno Musa Cerno Basiru Taal xalifa Omar yani ñu ngi koy ziar ak doom ji Cheikh Omar Sërif Xaya Aydra Sëriñ Zal Sëriñ Mohamed Lamine doom ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba Medina Bass xalif bu Mansour Sy Sëriñ Mansour Cissé xalif bu Biir Sëriñ Abdou Dramé xalif bu euh, Nand Sëriñ Maam Abdou Cissé xalif bu Jaamal Cerno Madani Taal Cerno Muntaga Taal njabootu Cheikh Moussa Kabara Cheikh Moussa Cissé Njambe borom Daaru ca Passy Cerno Abdourahmane Bari Sëriñ Abo Mbàkke Abo Mbàkke mooy yàgg ci wér sëñ Abo Mbàkke xalifa sëñ Fàllu Mbàkke yàlla na fi yàgg ci wér ku ko wax tamit yàlla nga fi yàgg ci wér yàlla na yàlla guddal fanam may ko fan bu gudd lool sëñ Mbàkke Balla Aysa yàlla yàlla na sa dund gii yàgg fi lool te wér fi lool Mbàkke Balla Aysa sëriñ Fàllu Mbàkke docteur sama sëriñ sama xarit sama wëlëre yàlla ko yàlla defal jàmm di jël nuyoo bi di ko teg ci jëwriñ Moustapha Sène ñu ngi koy ziar Alaaji Cerno Saama Saam waraa bi ndigal ga wàcc na incha allah lundi le 11 moom amu cerno saama saamura bi ca Fuuta ñuy gërëm tamit bu baax képp koo xam ne yaa ngi ca organisation ba incha allah ren danañ fa teewaal ko nañ fa teewoon daaw bu soobee yàlla daa dee gën a ci li nga xam mooy gàmmu cerno saamura bi gërëm tamit góor sàmm imam la ca Casamance représentant xal général ca Casamance imam Fassou Bodian xalif général de la communauté Joola Serigne Cheikh Salim Mbacke xalifu Serigne Salim Mbacke Cerno Bokar Alpha ba ca war fonde Cerno Modou Arma Gaye ca ñànke idi alaaji Mouhamadou Gaye nekk ca Mbour Tefes ak Serigne Habib Gaye mu xaddamu Serigne Mansour Mama Sugu Waadaan mi nga xam ne joxe na ndigal bépp taalibe incha allah reeru gàmmu yi dañ koy takk jóg daal di koy dem xam ne chaque année la seexal di Cheikh Adama Niang mi nga xam ne dénk ca Thiès na ko yàlla defal jàmm may ko wér gu yaram ñoom ñëpp ñu ngi préparé takku jóg incha allah li nga xam ne mooy gàmm gi ngir di yóbbu li nga xam ne mooy reeru gàmm gi at bu nekk ñu ko defee sëñ Mamadou Sougou Wadane yàlla na fi yàgg te wér alaaji Seydou Sow sëñ Fallou dëkk sëñ euh, dëkk ca parce ñu ngi koy ziar sëñ Abdou Karim Mbacke sëriñ Mama Meng bi ñu ngi koy nuyu ak Modou Fleur nekk ca Ndindi cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye ak mboolem chrétien ña ngay laajte la 20 millions la cardinal bi parce que paroisse booy nga xam ne moo nekk Popenguine paroisse yi gën a yàgg ci Afrique de l'Ouest si la bokk te bu ñu ko yeesalaatee dina bokk ci paroisse yi nga xam ne ñi nekk ci Afrique de l'Ouest yëpp dinañu am mbégte ci loolu moo tax cardinal ba joxe na ndigal nee na képp koo xam ne guney chrétien nga ak chrétien tey liggéey loo am na nga ko fa indi parce que nag dañ ko war a yeesalaat te loolu sagub chrétien yi la sagub ki nga xam ne nag moom mooy yonentu yàlla Yeesu Christ borom xel mu sell mi kon chrétien yi ñun ñëpp takku ab say fexe ba lii nga xam ne moom la cardinal bëgg 20 millions ñu daal di def ci néeg boobu nga xam ne nag dañ ci jaamoo yàlla te ñëpp nañ ci dugal seen loxo muy musulman muy chrétien man sama ñaari junni dem na ba pare waaw joxe naa ñaari junni dem na bu yàgg waaw kon nag moo tax ñun ñëpp nañ ci takk ab say dañ koy def ndax carnaval bi bu joxee ndigal da ko ne gars yi jëfee ñuy am mbégte contentement di maître Fatima Fall responsable politique nekk ca Ndar yàlla yàlla gudd fanam Serigne Mansour Sarr chef religieux ca buddi nee ren équipe Kouthia Show dañuy bokk ci ga gàmmu buddi sëñ bi nee na seen ñaari xar taxaw na ba pare yéen waa Kouthia Show sëñ Mansour saar moo ko wax nee na seen xar ak seen bernde ak seen tànt tant climatisé la leen defal gàmmu international bu buddi yàlla yàlla may ñu fekk te kenn bañ a di ziare suñu yaay Adja Kine bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almartum bi ñuy jooy ba tey noppaguñ yàlla yàlla euh, leeral bàmmeelam Serigne Babacar euh, si siti awal ñu ngi leen di xaar de mu leen di xaar de de Serigne Gora Sey serviteur de l'islam Pape Amad la ci jumaa Serigne Babacar si moo fay noddu Maodo Ñang suñu xar imam Kaaso Gassama ca Casamance ñu ngi koy nuyu góor gi Ablaye Niang jàng ko ta xasaayat ca ca Ndar géej yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam di nuyu tamit bu baax Serigne Cheikh Ndigal seen moom tamit ñu ngi koy ziar Serif Abdoul Moutalib Tidiane sët sët la ci Cheikh Ahmed nekk ca Pikine yal na yàlla dëgëral taxawaayam Alaaji Carno Hamdu Aaw xalif bu Alaaji Mamma Aaw nekk ca Calaaw moom tamit sama papa la sama xarit la ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Harouna Sy porte parole di xalif bu Thierno Hamdou Aw ñu ngi koy nuyu nekk sa Calaaw waaye di gërëm tamit bu baax sama xarit bu ñu naan Mbari Ka ñu naan ko Aliou Ka nit ku yàlla baaxal moom tamit nit ku bëgg bëgg yoon bi nga xam ne ak li nga xam ne moom mooy dëkkam Ténélaire Ténélaire dëkk bu neex la boo xam ne moom suñu xarit bu Mbarika fa la nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm di ñaan kat di nit di marabu yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye tamit ñuy ziar tamit Alaaji Mouhamadou Aysata xalif général bu Guet Ardo moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Cheikh Aljuma Ba porte parole bu euh, bu bu xalif général bu Guet Ardo moom tamit ñu ngi koy ziar Mbarika di taalibe euh, Cheikh al Aljuma Ba Euh, ñu tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax Cheikh Abdou Cheikh euh, Aljuma Ba bi nga xam ne nag euh, kii nga xam ne moo fi toog tey di Alaaji Mouhamadou Aysata mi ci njaboot gi la bokk kii nga xam ne nag porte parole ba ñu ngi koy ziar turandoo nag porte parole ba turandoom bu mag nga xam ne moom mooy Cheikh Aljuma Ba waaliw kaamil la woon. waaliw kaamin kaamin kaamin kaamin waaye ki fi toog tamit tamit ci jal bi tamit waali kaamin la di Alaaji Mouhamadou Aysata xalif général euh, bu Guet Ardo ñu ngi koy ziar Aliou Ka mu ngi koy ziar ziar mbokk yëpp waaye tamit ñu nuyu Thierno euh, bu Daaru Kaba Thierno Cheikh bu Boynaaji ak Thierno Mamadou Lamine nekk ca Dugg Ngor Alpha ñu ngi koy nuyu Imam Mansour euh, Seck suñu xarit la waxtu bi ñu waxee yéen ñu ngay préparé wàccaay Tiwaawan may ñu fekk ko Thierno Alassane Mbaye taalibe Thierno Aliou Thiam ñu jàmm may ko Diop nekk ci biir Kama di ziar tamit Alaaji Ahmed Dame euh, Ibrahima euh, Ibn Baye Niass moom tamit njabootam yëpp ñu ngi leen di ziar ziar soxna Seyda Euh, Seynabou Dame Niass ñu ngi koy ziar ak Serigne Mame euh, Samba Dramé Mame Samba Dramé xalif bu Serigne Makhtar Kala Dramé nekk ca Dramé ndimb moom tamit ziar nañ ko Alaaji Mbacke Tandian euh, waali kaamil la woon maam la ci ki nga xam moom mooy Cheikh Tidiane Diouf xam ne moom la fa bàyyi yoon bi Baye Niass Tandian coordonnateur daara ci Medina Tandian ak yàlla guddal seen fan di ziar tamit si njabootu Serigne Saliou Diouf nekk ca Mbuuf Mbaaleen Serigne Khadim Diouf bi nga xam ne mu nekk ci Jalba ñu ngi koy ziar ak jëwriñ bi nga xam ne mooy jëwriñ Modou Diouf gaynde Cheikh Saliou Mbacké moom tamit mu ngi préparé pour xale yëpp daal di takk jóg ci góob bi nga xam ne ña ngi ko amal ca Poroxaan te ndigal ba sëñ sëñ Cheikh Saliou jox ko ko sëriñ Cheikh Bara Amar nekk ca Naameen ñu ngi koy ziar ziar bu wér waaye di am mbégte kontaan ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Sow waaliw Kaamin di xalif bu maam Abdoulaye taxawaayam di ziar tamit ajaratu Ndey Sufi Taal mu Cerno Muntaga Taal borom Alpha Voyage yàlla yàlla may fan bu gudd gudd yaram kilifa diine yàlla na yàlla sàmm yàlla na ne yàlla may fan bu gudd ak yaram gis nga gàmm gii ñu jëm soo demee Touba dañuy gàmm nga dem Tivaouane dañuy gàmmu nga dem njaasaan dañuy gàmm nga dem Medina Baye Léona Niassène dañuy gàmm foo munti dem nga dem Kër Laayeen fépp dañuy gàmm jullit yëpp dañuy gàmm bés bi ni ñu koy defee nag ci kër ëttu diine yëpp nu ñu ñaan eh, xam nga ne lii du jàmm de Fatima réalisatrice boo demee ba am téléphone bu m boo demee ba fàtte fi bu mel nii xam nga ne ñàkk nga kat yaa ngi bëgg ñàkk classe nag Fatima bañ sàccee sa téléphone boobu léegi yow yow téléphone bii nga yor téléphone bii nga xam ne léegi léegi léegi téléphone yi nga xam ne xale dañ koo jël pour jouer pour jouer xale boo ko jox cadeau sax mu bañ ko waaye Fatima ay mbokkam xanaa nekkul ci réew mi wala ay mbokkam dañoo nekkul ci réew mi Fatima mbaa lii jàmm la lii na di ko fi teg sama plateau bi sax daf may um puus ko acca na jàll fa la kilifa diine yëpp yal na yàlla sàmm may leen fan bu gën yaram mbokk am na lu xew de waaw ña nga ñëwal géew am na lu xew de ndekete Mimi Touré Mimi Touré ajjuma bi non waa APR nag waa APR dañuy defoon ne de xam nga lu ñu doon ay douze mais waa Kaolack man waa Kaolack man vraiment waa Kaolack nag man waa Kaolack problème bi boo leen ko bàyyi mu jàll man nag pare naa ci de Kaolack li muy rëy rëy rëy yëpp ak doomu aadama yi fay yeewoo yëpp amul lu ko doon inauguré Mimi Touré ànd ak ay autorité ñu taa ah, <laughs> ah, man de wax dëgg yàlla ormal naa Kaolack ndax Kaolack dëkk bu baax la de kaw Kaolack nag dëkk la boo xam ne wax dëgg yàlla nag inauguré douze douze menn ma dikk ñaan nee na inauguration douze yooyu ni mu ko waxee kañ la seeti ma dikk ñaan jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant soo gisee ma wootee ree ñoom bi waa Kaolack yi xam ngeen ne sama parti coalition ma dikk 2012 2019 bi dafa am doole waaye nag di wax sama militant yi ñu dawalee nag keroog kontaan naa ci ñoom parce que ñoom ñoo ma njëkk woon woo ma ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré mu ngi fii Kaolack ñuy laaj nag ndax ñoom dañu war a déplacer war a déplacer man leen Mimi Touré bu wootee lu ci waa ah, coalition ma dikk di wut ñu ne ma defa indi ay douze yoo xam ne dañ koy intégré douze Macky Sall nag bu demee nag bay intégré ay douze jot na nag pour ñu wax ak waa réew mi parce que plan Sénégal émergent bu fekkee douze ci émergent la bokk kon wax dëgg yàlla la war na man ba léegi mënu ne man man ne autorité bu toll war naa dem di dagg ay ay ay cordon pour intégré douze douze douze nga xam ne ne douze douze douze ah ne est-ce que ñun damay laaj ci ban pays dañu nekk parce que Sénégal ni mu toll waa Kaolack nag war ngeen jóg de parce que lu toll ne région de Kaolack la fa nekk yëpp ci ay potentialité ñu waroon fa intégré lu mel ne ay stade ay hôpital waroon intégré ay dispensaire intégré fa loo xam ne Sénégal dinañ ne lii ndi lii def waaye duus duus sax balaa nga fay dem day fekk nga lekk xiif bi nga xam ne moo na ci réew balaa ngay dem duus day fekk nga lekk waaye duus loo indi gërë ñu ne duus li ma ci gën a métti nag mooy ñi dar ñi ko dar ñoom ay autorité ñaa ko dar mu jaadee jël li nga ne mooy sujet bi daggee yi baa mi jël discours taxaw di wax ne maa ngi indi ay duus kon waa Kaolack daal fu mu ne nii la xale yi doon way way waaw déedéet yéen a ngi tooñ de déedéet waa Kaolack immigré wu ñu douze ma di déedéet Mimi Touré moo demoon di immigré douze waa Kaolack nag du ñëpp a ànd ci immigration douze yi parce que Kaolack dëkk la boo xam ne dëkk dëkk bu yaatu la te nag am ëtt yoo xam ne ay kër diine dañ fa nekk am na loo xam ne dañ dafa ñaaw parce que douze yow inauguré maternité inauguré fora fu ñuy jaay ay xar inauguré foo xam ne restaurant la bu mag pour ñëpp ñi nga xam ne amuñu néew du doole bu ñu bëggee lekk ñu daal di dem foofu lekk inauguré foo xam ne da ko def foo xam ne pour dalukaay ñi nga xam ne dañoo réer wala ñi nga xam ne dañoo tàggoog seen sarago ñu dem fa waaye looy inauguré douze foo jugee Dakar fan nga jëm Kaolack ñaata kilomètres la Dakar Kaolack passé na quatre cent kilomètres wara la ko topp war a ca la yem trois cent yi teg na looy inauguré douze kan ko xam nga ne lii wax dëgg yàlla waa Kaolack tey bu fekkoon ne man doomu Kaolack laa damay bàyyi APR ñëw ci parti ma dikk ñaa parce que man wax naa ko Adja Khoudia waaw dafa fayal moo tax yéegul wax naa ko Adja Khoudia ni ma ne ko ne ko lu leer laa la wax dama ne douze li nga xam ne moom la ma dikk ñaar def loolu li nga xam ne moom la Mimi Touré def man dam koy ñaawlu ba ci kanamu askan wi yow Ndiaye rax ma nag war ngeen taxaw nag génn de parce que war na ne carrément du ña soxla woon duusi ñan la ak ñan ñoo wuti woon duusi Mimi Touré fu mu demoon lu mu fa doon uti. inauguration lan la doon inauguré. douze déedéet déedéet waa APR dañuy inauguré douze. waaw waaw waaw. waaw waaw. waaw. waaw loolu la waay. douze. douze. douze ci boppam. douze. douze ci bopp douze. douze. waa xanaa du ay douze rek. douze men. douze. douze. douze. douze. douze. douze men.